xeex bu méttee méttee méttee moo ci am xeex bu méttee waaw man kay ba ma xëy si huit heures tey li ma fekk ci biir non gars yi nag dañoo bëgg moto yu régulariser loolu lañ bëgg. bu leen wàccee sur le terrain mën nañ dara wàccu. man de jigéen ji nekk ma jaaxal. yow nekkoo ci yoon ba pare ba pare di xeex. waaw jaww ji nañu yëkkati wàllu pôle Fouta yi. waaw bu ñu yëkkati waaw xeexuñu. non ba léegi ñu ngi ne seen bagage. waaw ah, mais comme seen gars yi oh. kan la ñuy kan la ñuy xoolo xoolo waa mairie xoola ñi xoola ñi demaguñu demaguñu ñu ngi koy soog a gis ko bàyyi nañ ko jàpp waaj rëcc na moo waruñu ko bàyyi. kon nag def. ci kaw xoolal fole ci kaw. xoolal waa mairie bëriñ jàpp di ko sëkkatoo. xoolal waa mairie bëriñ jàpp ko sëkkatoo. laay de la la. xoolal booy bi xoolal booy bi. lii Macky Sall la def kii Sonko moo def bi. Macky Sall nga nekk mu waxal keneen. Sonko moo def erreur bi. pare bi ba toj na. allahu akbar xool ko mu taxaw foofu oto bi ba ko foofu daw na ay waay naari ay waay waay naari ay waay waay waay ana poli mo waay yow da nga fay gis dara vraiment police. am na police. c'est dommage c'est dommage c'est dommage xool xool ñu ngi woote waa ji mu ngi woote xool. jërëjëf waa ji xoolal waa ji xeer ba muy sànni. ñu doon la nga dem seen tas ñëw. c'est dommage franchement c'est dommage. man ku ma am ra ra ñun amuñu am 3 minutes di xeex. non c'est dommage c'est dommage c'est dommage. c'est dommage. non yàqal nañ seen bopp. yàqal nañ seen bopp yàqal nañ seen bopp fi mu doon nii. fi mu doon moom yàqal nañ seen bopp moom. non fi mu doon nañ seen bopp. xool borom beew wala borom dëwru bi yow. kii di jàdd ci roq bële. waaw mais rond-point bi am na oto police. non c'est que central mënul nekk nii. conku nekk nii waaw waaw pendant cinq minutes na am na ñu nekk foofu. fee am na ñu fi nekk. waaw moom laay wax oto bi beneen beneen beneen beneen moom laay wax. ñu ñëw gaare fii tas day ñu ñu baax la kay kenn fi gaañu fii nii. Sénégal la comme réew la quoi. 300 la même pas 100 mètres. xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal. ah xoolal xoolal. xoolal policier bi waaw benn ngi noonu. xanaa. daa tooñ de. daa tooñ de. lu xew. ñoo xeex ak ñëpp. mais borom si la bu ñu toppatoo ko foofu dañ ko gaañ. mais foofu door nañ ko de. gaañu gaañu gaañu na na de gaañu xanaa xamoon ne a gën a métti te waa Colobane jub ne. non ñii suñu may nañ gars yoon may nañ gars yoon pour ñu yëkkati leen définitivement. ah léegi fini définitivement nañ leen di yëkkati. may nañ gars yoon waruñu woon xeex xeex sécurité xam nga kat na ko ay jur ko donc xoolal kii xool borom silanement bi xool borom silanement bi. yéen a ngi xoolal xoolal waa mairie xoolal ñi xoolal ñi demaguñu demaguñu ñu ngi koy soog a gis. buñ ko bàyyi rek nañ ko jàpp waa ji rëcc na. moo ngi noonu rëcc na waruñu ko baay waruñu ko bàyyi xoolal ci kaw xoolal fële ci kaw. far waa miir bëriñ jàpp di ko sëkkatu far waa miir bëriñ jàpp di ko sëkkatu de la laa eh, xoolal booy bi xoolal booy bi li Macky Sall la def kii Sonko moo def erreur bi Moussa Gueye nekk fu mu doon keneen. Sonko moo def erreur bi pare-brise ba toj allahu akbar kooku mu taxaw foofu oto bi ba ko foofu daw na ay naari ay waay waay naari ay waay waay waay ana poli mo waay yow da nga fay gis dara vraiment c'est police. am na police. c'est dommage c'est dommage c'est dommage xool xool ñu ngi woote waa ji mu ngi woote xool. jërëjëf am na police jërëjëf am na police yu nekk foofu noonu. xoolal waa ji xoolal waa ji xeer ba muy sànni. ñu doon la nga dem seen tas tas tas tas tas ñu ngi oh c'est dommage. c'est dommage c'est dommage c'est dommage. c'est dommage. c'est dommage. mënu ko ñu ko doon ñëw. c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Non, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. non yàqal nañ seen bopp yàqal nañ seen bopp yàqal nañ seen bopp fi mu doon fi mu doon moom yàqal nañ seen bopp moom non fi mu doon yàqal nañ seen bopp kon borom dóoru beew wala borom dëwru bi yow. kii di jàdd ci roq bële. waaw mais rond-point bi am na oto police. non c'est que centrale mënul nekk nii. conk nekk nii waaw waaw. pendant cinq minutes am na ñu nekk foofu. fee am na ñu fi nekk. waaw moom laay wax oto mag bi beneen beneen beneen ñu ñëw fii tas day ñuy ñuy baax laa koy kenn du gaañu fii nii. Sénégal la comme mën

mais borom si la biñ a toog a ko mais kooku door nañ ko de. gaañu gaañu na de gaañu ba léegi ba léegi ba léegi ba léegi a gën a métti te waa Colobane jub ne. non ñii may nañ gaa yoon may nañ gaa yoon pour ñu yëkkati leen définitivement. ah léegi c'est fini définitivement nañ leen di may nañ gaa yoon waruñu woon xeex xeex bii dégg nga heure jotee xam nga kat yi dégg waaye jur gi plateau fii. fii nii gars yi songu nañ gars yi songu nañ gars yi songu nañ gars yi def nañ offensive gars yi def nañ offensive gars yi def nañ offensive gars yi def nañ offensive gars yi def nañu offensive. waaw waaw waaw waaw waaw def nañu offensive. zéro zéro am na zéro am na zéro kenn nekk fi kenn nekk fi kenn kenn. wala dinañ fekk parabolique après. waaw pël yi duñ. waaw mais kenn du jigéen borom kii bu vert bee ne kenn du jigéen. borom lu vert lay ne kenn du jigéen. ah Diaw. mais kii bi pël yi duñ soroon nii saw saw nii. xoolal xoolal test. gan gan gan gan foofu de. na ko gan na ko gan di. jàpp léegi dañuy jàpp bagage dinañ jàpp bagage par force léegi dañuy yàq sabotage la ñuy def sabotage la ñuy ma wax mais li ma wax central mi ngi fi tout près. ma jaay tuuti gi non non. rond-point bi si réew mi. xoolal ma lii xoolal lii ñi nit ñi ñi gaañu gaañu